mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen émission li ci penc mi tey nag ci kàttanu borom bi ñu ngi fas yéene penco ponk bu jëm ci wàllu ñi nga xamante ni dañuy yóbbu askan wi ñenn ci ñoom ay jigéen wala ay góor sax ci pays arabes yi ngir rek liggéey ci wàll woowu nag li waral waxtaan bi mooy da ci am léeg jigéen ñu yëglu euh, ne dañ leen fa yóbbu li ñu leen di wax ak lanu fa fekk daanaka safaanoo lool am na ñu dem ba ni dañ leen di maltraité ak yeneen ak it kumpa gi nga xamante ni moo lalu ci yóbbu gi euh, nees mën a def ba yee ci askan wi yëpp état bi euh, fa mu ci toll ci wàllu formalisation yi bu ko defee ñu daal di euh, moytu yenn clandestinité yi jur yenn jéy yu mel ni li daal sama xarit sama dendandoo bi bébé Aïcha ba mu ne ca Koweït yëg lu woote wàllu ba Sénégal yëpp yëg ko ba ni mu ñibbee alhamdulilah moo waral ñu daal ko fi sax prier bébé Aïcha ma nuyu say nijaay ba noppi wala soo ko ñëw ci yow. nuyul samay nijaay ba noppi. <laughs> jërëjëf Sow euh, Fadel Gueye sama doom bàyyi la moom journaliste spécialiste ci wàllu réewu arab yi mi ne maa ngi lay ziar sëñ Fadel. maa ngi lay fay El Hadj di kontaan loolu ci invitation bi. jërëjëf docteur Ibrahima Ka chercheur la moom di gëstukat euh, docteur maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di la fay bu baax di kontaan ci invitation alhamdulilah Makhtar Fall moom dafa yore agence agence bi nga xamante ni dafay dafay yóbbuwaate euh, ngir daan doole geeg xëy mi euh, di kuréel ak Makhtar group sëñ Fall maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay El Hadj Assane di kontaan ci invitation bi. waaw ah, jërëjëf Aïssata Sow ni ma ko waxee ci ndorteelu xibaar yi moom teew na bébé Aïssa ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay. jërëjëf di kontaan bu baax baax ci invitation bi. voilà ma gërëm bu baax ci wàllu réalisation Adja Binte Diallo Pierre Da Silva toute son équipe ak euh, service production. bu TFM euh, waxtaan wi dañu koy door euh, soxna si Aïcha ci li nga xamante ni euh, loolu nga wax ba ni ko waxee daanaka mooy prétexte waxtaan wi ndax xëy na nit daan na dem ak jafe-jafeem waa bi yoon xam nga boo nekkee nit ku siiw artiste comédienne journaliste wala boykat boo defee dara ni ñu koy fulee ak ni muy ni muy fësee du doon benn bu doon xëy na keneen bi yëf yi xewee ñu ne bébé Aïcha lang na ci pays arabe yi nee na ñu ngi koy maltraité nañ ko dimbali mu ñibbi si d'abord yow fan nga jaar ba dem waa avant tout dama naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi toog tey jii di seetaan uh, TFM donc sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp miɗa salmina kadi kala mbiyo mbimi e mbimami mi salmini foof en kala mo ganduɗa haɗa hetto kam tan miɗa wima ya waɗanam du'aw assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam fan nga jaar ba dem agence la yóbbu wala da nga topp benn riir wala koo xam ne wóolu nga ko rek euh, dem. waa euh, du agence du riir parce que dafa am koo xamante ne sama xarit la mu nekk euh, koo xamante ne dafa tuuti tamit sori ci man ma demoon seeti ko. Mhm. yàlla def sama benn xarit bi nga xam ne moo njëkkoon a toog sax ci rajo bi ne bi mu yëg ne dem naa fekk na. bi muy yëg ne maa ngi ci yoon di dem fekk na jël naa vol ba dem moom moo ma yóbbu woon ci ay mboqam présenté ma leen bi ma demee aussi xamante ak ñoom xamante bu rafet seen mag bu jigéen ne kon sama xarit yàlla def mu génn àddina mhm. ma koy jaale tamit mbokkam yëpp léegi nag ci xameel bu rafet boobu ma xamante woon ak ñoom ci laa déggoon ne voyage bii day am mhm. léegi nag ñu nekkoon di ko mébét di ko waajal man tamit ma gisoon ci sama bopp. Mhm. ci li ma déggoon. mu doyoon ma ba mu jaraloon ma man ne ko man bëgg naa dem. Mhm. waaw ci laa def sama weccet. Mhm. sànni ko ci biir ñu nekk di dugg di génn ba yàlla def ma dem kowet. Uh-huh. di dajale billet bi. so xam naa ne Koweït du du du du paasu Thiès. Mm-hmm. ñaata la ci xayma. eggoon nañu euh, paas bi 450 000 la woon. mais nekkul woon tamit man maa fay lépp. moitié la ñu fay ma fay moitié. ci bien ma dem. Mm-hmm. yow lan la waxoon bi la ne kaa ñu yóbbu la Koweït lan lañ la diggoon comme liggéey. waaw dañ ma waxoon ne liggéey bi foofu méttiwul melul ne tey jii comme liggéey yu bari fii Sénégal liggéey bi benn benn salle ngay defar ak néeg ak salle de bain fin ñu fay la 300000. man i 300000. waaw ndaw boobu rek. <laughs> loolu neex na di ba pare jël avion dem tukki xam nga minimum Sénégal naan ana bébé Aïcha duñ la gis xam nga rek benn instant xelu xale bi aussi moom ma jàppoon tamit. Mm-hmm, mm-hmm. vraiment après ma daal di dem xam nga ma ne loolu dina ne ñu ne ma après deux mois trois dañ lay yokkal balaa six mois yi di nga dem bay fayee ko six cent mille ma ne comme que maa ngi fii fan yi liggéeyu ma aw ma mm-hmm. benn esquette aw ma dara bàyyi ma daw làqatu foofu ñaari at ma liggéey bu ma ñëwee jënd sama terrain woo sama papa mu ñëw maa la ko jox <laughs> may xalaat daal lu mm-hmm. bëri vraiment mm-hmm. vraiment mm-hmm. bi ma demee ba foofu aussi non xam nga dañ ne cin bu naree neex si ba xeexee <laughs> aéroport ba la ma xeeñ ne fii ma ne mm. du jàkk nan lañ commencé yow aéroport <laughs> parce que rang bi benn metti na ñaar avion bi bi ma yéegee Éthiopia sonn naa mënatuma dara parce que da lekk yi neexul lekk ma woon ci avion bi ma xiif sonn di miir xam nga mu metti woon premier voyage avion la woon premier voyage vraiment léegi ma yegg si foofu ñu changé ñu beneen avion ñu yóbbu ñu rang bi metti ñu téye sama passeport ba sama bopp bi di metti ma mujj dem ci naar bi ma ne ko ana xii nii daaxil marid ana marid dama feebar mu jox ma garab ma naan ci la ma jàppale sa baay ma man ma dem mhm. mu boole ma ki ma jël si kooku taal otoom yóbbu ma ci kenn ku fa ne koo xamante ci avance bi la nekk mhm. benn xale bi jigéen naar këram laa fanaan ba bët set mu yóbbu ma agence ba mhm. bi ma demee agence ba tamit ma toog fa tuuti même pas trente minutes mhm. benn waaye ñëw jël si ma biir waati oto mu ne ma kaay ñu dem yàlla guumee ka ma ne fan laa jëm kooku ne ma àndal ak kii ngeen dem ma ne ko ok ci laa ànd ak moom dem mu nekk Abdallah Diassi moom tamit nit ku baax la moom laa doon liggéeyal. Mm-hmm. ak jabaram mama Fatima. ñu baax lañu waaw ñu baax lañu vraiment si si dafa a sant seeg moytul léegi léegi yow kon ñoom baax nañu mais liggéey bee bari rek. yii vraiment baax nañu. parce mm. que tey nekkuñu fi. Mm. xamuñu Sénégal. Mm. mosuñu ñëw senegal waaye nit booy wax da ngay wax sa diggante yow ak sa borom ndax lu waaye wax rek dina ko waxaat kon du ma ñëw ci télé bi di leen sosal. di leen waxal loo xamante ne nii man xam naa ne du dëgg vraiment paa bi ku baax la mhm. mère bi ku baax la ba sama téléphone bi ma yor paa bi moo ma ko jëndal mhm. vraiment ay nit ñu baax lañ jëndal ma yëre jëndal ma sajaade ay yëre yi may muuroo ay kol kawas yëpp dañ ma ko doon jëndal mhm. vraiment nit ñu baax lañ fobeere baa xaw a bari rek waaw très bien bébay sa jërëjëf bu fekkee ni euh, Pierre da Silva Elimane Sembène mu ngi ci jokkoo bi ngeen baal ma rek euh, mes chers invités waaw rapidement ma dem Maroc ñëwaat Elimane sembeen moo toogal groupe Futur Média ca ca ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu El Hadj Assane di nuyu sa invité yi nga toogal ci plateau bi. jërëjëf Elimane ci sa ànd ak ñun ci ci penco gi euh, li li waral ñu ñu woolo foofu ci ci Maroc mooy foofu it dañ naan dañ fa yebal léeg ay doomu Sénégal ñuy dund lu ne nag am na nag ñoo xamante ni ñu ngi tedd ñoom ci kenn yëgu leen macha allah am ñu fa ami jafe-jafe defal ñu le point rapidement s'il te plaît ci euh, ñooyee ne ay doomu Sénégal ñëw daan seen doole Maroc lan lañ fay dundee luy situation bi. voilà donc El Hadj Assane euh, d'habitude circuit bi ni muy demee mooy dafa am ay sénégalais yu nekk fii nii Maroc ñoom euh, ñooy gisante ak ay marocains yu soxla ay euh, ay ay mindaan ay sénégalais yu daan seen doole fii léegi ñooñu bu ñu bu ñu dugalanteeg sénégalais yooyu sénégalais yooyu dem Sénégal waxa seen i mbokk utal leen fa ay jànq ñu ñëw fii daan daan seen doole. mais li ñu seetlu mooy sénégalais yi nekk fii ci Maroc léegi-léegi li ñuy dig xale jigéen ñooñu ak li am fii du benn. Mhm. dinañ leen dig ne bu ngeen ñëwee fii nii di ngeen am salaire parce que fii souvent euh, salaire bi ñuy fay euh, soxna yi fii c' est entre deux mille dirham et deux mille cinq cent dirham maanaam entre cent vingt mille et cent cinquante mille francs CFA. xam nga tey soxna bu nekk Sénégal nga nekk cent cinquante mille francs CFA ngay fayeku. Mhm. moom daanaka vingt cinq mille loolu da koy di Mhm. léegi une fois ñu ñëw sur ñu bëri ñoom sax daanaka dañuy nëbbatu xale yooyu du ñoo gisati. léegi euh, bu ñu ñëwee fii nii naar yi nga xam ne ñoo waxa ñoo ñoo waxante woon ak ñoom ñoo leen ñoo jël si xale bi yóbbu ko seen kër tëj ko ci kër ga bu ñu leen tëjee si kër gi confisqué seen i passeport bu ñu confisqué seen i passeport des fois des fois ngis kaa yoo xam ni xale yu bëri dañuy toog ay mois ay mois ci benn kër mën nañ toog pendant cinq pendant six mois xamuñu xaw ci biti Mm-hmm. léegi xale yooyu souvent aussi euh, bu ñu xamul ku ñu bu ñu amul benn Sénégal bu ñu xam dañuy nekk se tolof tolof. Mm-hmm. li gën a métti aussi El Hadj Assane mbir mi mooy euh, xam nga fii du ñëpp ñoo mën a jël jànq des fois ñu leen di embaucher c'est des personnes ñi nga xam ne son sont dans la classe moyenne wala souvent ay patron ay Richard te ñooñu fii nii ay villa lañ fi yor ay kër yu ngande wala appartement yu mag léegi soxna yooyu bu ñëwee souvent. dañuy nekk ci appartement yu mag yooyu ak villa yu mag yooyu façon liggéey bu nekk la ñeen jox foofu maanaam métital yoo xam ne mënuñ ko wax ci télé. Mhm. maanaam tolof tolof yi met lañu koy dundee léeg-léeg. Euh, des fois aussi eh, Elimane waaw rapidement aussi ñu ñu jéem a xool ñi nga xam ne nag ñoom gis nañu bunt ci ci ci ci seen euh, immigration boobu tukki mi voilà waa en fait du du du naareeb ñoo du naareeb ñoo ñoo ñoo soxor am na fi aussi naan ñu baax am na fi cas yoo xam ne yu bëri am na sénégalaise boo xam ne moom fii la nekkoon moom daanaka liggéey bu mucc ay la fi doon liggéey ba naari sax dañoo dem ba euh, même soxna soosu ba mu amee bañ ko waree may euh, borom kër dañoo def tout ba ne naar ba ba ba def tout ba retenir ko ba nekk doo dem mujj gi sax soxna soosu ba mu amee borom kër ba dem sax naari dañ ko continuer di ko toppa nekk yow léegi bu ñu soxla tey jànq sénégalais yow la ñuy oo loolu benn cas la. beneen cas bi aussi mooy am na fii ni Maroc benn personnalité boo xam ni bu jege loolu nguur gi la fii ni ci ci ci bu jege loolu buur bi la. Mhm. moom Rabat la njëkkoon nekk di fa liggéey ak ay sénégalais sénégalais yooyu liggéey fa liggéey bu mucc ayib ba même bañ koy muté di ko yóbbu beneen dëkk bu nekk bët Saalum bi da leen yóbbaale. beneen kaane bi ci gën a bi ci gën a am solo mooy benn sénégalaise bu nekkoon fii aussi nekk si ay kër Richard liggéeyam aussi mucc ayib. ba sax ñi mu doon liggéeyal dañ ko mujj yóbbu màkk pour dire que du naar rek ñoo bon mhm. du naar ñooy def naka sul noonu ngeen baal ma ci wax ji am na naar yu baax léegi sénégalais yi ñoom avant ñuy ñëw nañu gëstu xool bu ñu fi ñëwee yan condition la nekk te aussi bu ñu ñëwee tamit ñu jéem a dem ci consulat bi wala ci association bi surtout ça se signaler au niveau du consulat voilà pour déclarer wu pour au moins ëllëg ëllëg ci biir bu ñu amee tolof tolof parce que consulat bi association bi ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci mbir moomu donc avant ñuy Euh, jéem a une fois sur place ñu dem ci consulat bi. pour man hmm. déclarer wu. am na solo lu ci lu ci biir lu ci am ñu mën leen jàppale ci mbi ci fànn boobu. c' très important jërëjëf jërëjëf Elimane Sembène ñu ngi lay gërëm bu baax ci loola nga ñu dolli ci waxtaan wi euh, di la ñaanal jàmm yaak mbooloom doomu Sénégal yi nekk Maroc ak fu ay mën a toll nepp sénégalais euh, bitim réew sëñ Matar ci ci wàllu ko yóbbu gi nee na ñëw agence nga yor déglu nga Bébé Aïcha déglu nga Elimane naka lay demee wàllu wàllu yóbbaate gi ndax ndax tegu na ci yoon waaw euh, bisimilah rahmaani rahim comme ñoom ni ko waxee rek. Mhm. daanaka kii euh, sembeen mi euh, mujjee wax nii wax na wax ju am solo wax ji yëpp li ko guddal wala li ko gàttal. mooy ne àdduna bi yëpp moo mel noonu. liggéey boo gis. Mhm. amul lenn loo xamante ni dafay nekk cent pour cent dafay am loo xamante ni dafay réussir am loo xamante ni du ñàkk mu am ay tolof tolof. Mhm. léegi nag. li nga xamante ni ñun foofu la ñu war a concentré wu xam nga mooy la mooy naka la ñuy organiser woo ba nga xamante ni bu fekkente ni yóbbu nañ fa nit mu am ay tolof tolof naka lañ koy taxawoo ba mu ba mu génn ci ay tolof tolof yooyu. Mm-hmm. te loolu bu fekkente ni man ci cadre secteur bi ma nekk man mooy wàllum Arabie Saoudite. Mm-hmm. laa xam. Mm, euh, foofu laay yóbbuwaate agence yi nga xamante ne ñooy yóbbuwaate bitim réew Arabie Saoudite ci réew arab yi yu officiel. Arabie Saoudite daf ci bokk. nga xamante ni bañ na ko ba ambassade Arabie Saoudite moom moo ne képp koo xamante ni parce que dafa dafa amoon anarchie yóbba yóbbu yóbbu bi dafa dafa amoon pëccëxoo bu ci nekk. ku waaye neex yóbbu ku la neex xamoo naar bi identifié ko xamuloo ci dara mais ambassade Arabie Saoudite dañ ci def benn jéego bu am solo moo ne ñu ne képp koo xam ne bëgg ngaa yóbbuwaatee léegi na nga ut kii tel tel tel tel. Mmh. am Sénégal yu bëri yoo xamante ne ay responsable lañ fii ci dëkk bi. ut këyit yooyu ñu matal condition yi nga xamante ni moom la ambassade bi soxla. Mhm. dem jébbal ko ambassade bi déglu leen. Mhm. ñu toog ba jëmi jamono ambassade bi woo ñi nga xamante ni ñoom la ci soxal. mu woo leen loolu mais loolu nag du ñëpp ñoo ko yëgu du ñëpp ñoo ko yëgoon mu woo leen ne leen yéen ñi kat bis ñi ki tey mhm. agréé naa leen yéen kese yéen a am droit di jël nit fii di ko yóbbu Arabie Saoudite donc loolu mu nekk benn étape boo xamante ni. kon solo la waaye du information bi mooy am na agence yoo xam ne. fii Sénégal agrément bu ambassade Arabie Saoudite lañu am. waaw bu Arabie Saoudite moom lañu ah. am waaw. mais nag avant nga ko am ñoom li ñu lay laaj li ci jëkk moom mooy nga am autorisation sa réew. Mhm. nga xamante ni yow dañuy xam li ngay liggéey ak fi muy tege. te loolu doo mën a am. agence wala nga nga am agrément te jaaruloo fu ci état bi. Hmm. ñu su ko defee nag ñun ñu dem ci état bi. Hmm. ut kayit yi nga xamante ni moom la ñu war ut ba taxawal suñu suñu suñu. agence bi mooy à travers le ministère des affaires étrangères wala. Euh, non kii euh, ñoom euh, dugaluñ ko ci mais hmm. ministère du travail lañ ci dugal. du travail waaw. très bien fàttali ni ci wàllu woowu sax état bi mu ngi mu ngi formaliser mbir yi ndax bu ñu jëlee kaawu Qatar. Euh, yóbbu nañ fa ay docteurs yoo xamante ni defe naa ne ci waa Qatar ñoom ñoo euh, fësal besoin bi càkkutéef bi état bi yebal fay nit ay candidats. toftal ca inspecteur du travail. loolu dafay wane nii ñu ngi formaliser. waaw lu loolu dina am euh, benn assurance. loolu loolu li koy wax dëgg la loolu am na am na Qatar mais amagul mhm. mais guddi yi ñu toll nii tembe état bi man xam naa ci dara. mi ngi ci def ay jéego yu am solo. Mhm. pour que euh, doomu sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk dafa am ay jafe-jafe. ñu ñu ñu génn ci jafe-jafe yi nga xamante ne ci lañ nekk loolu moom état bi mi ngi ciy am solo ñu ngi ciy liggéey. Mhm. ak ñun mais xëy na liggéey bi moo xaw a yéex tuuti rek. mais incha allah dina am résultat te am nañ ci yaakaar daal. incha allah docteur Ka ci ci wàllu say gëstu suñu digg ak Arabie Saoudite notamment ku ne xam nga cosaan ak diggante bi ak macha euh, li ci ne nepp taar ak li du bokk sax xëy na nga xam ni moo laal ak dund euh, diine gi ñu gëm ñu nepp euh, ci wàllu gëstu yi naka nga mën a tey ji jàngatee yooyu relation Sénégal Arabie Saoudite ak ci wàllu jëflante notamment li ñuy waxtaanee tey. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf El Hadj Hassan ci question bu am solo boobu. Mm-hmm. nga xam ne teg nga ko ci taabal ji euh, li ñuy njëkk a bàyyi xel d'abord comme ni nga ko waxee mbokk ak Arabie Saoudite ak Sénégal. Mm-hmm. non seulement dañu bokk ba pare mais bokk yoo xam ne dañu xaritoo. Mm-hmm. te xaritoo googu yàgg lool. te boo ko seetloo ci histoire suñuy relation euh, ci bu yàgg euh, bokkoo gi dafa nekk ah, peut-être que ci niveau bu yëkkate ko ci diggante état ak état ci dimbalante yi ñooy dimbalante demlante yi ñooy demlante. Mhm. les relations diplomatiques les positions communes sur le plan politique international yooyu moom daf moom mooy li nga xam ne moo gënoon a ëpp doole ci suñuy relations mais yàlla dogal nag léegi boo koy xoolee sur le plan sociologique. Euh, lépp dafa nekk euh, brassage culturel bi dafa am benn éclatement bu mu éclaté wu. Ah, ah. nga xam ne peuples yi dañuy duggante mooy xeet yi e boo ko seetloo waxuma ne. ay xale yu daan dem ci jigéen Arabie Saoudite dafa liggéey amuloon du ñu wax loolu hmm. mais façon bi mooy amee léegi ak nombre bi may dikkee mooy tegtale ne suñu relation yi léegi euh, devient un peu plus complexe mm-hmm. parce que population yi dañ a dañ ciy euh, contribuer mm-hmm. ci dem beeg dikk bi denatul rek dem Arabie Saoudite jën fa marchandise ñëw wala dem Arabie Saoudite euh, dem aji Màkka wala dem Omra mm-hmm. nga xam ne presque suñu activité Arabie génn loon commerce wala jaamu yàlla mais léegi ça devient encore plus complexe parce que léegi bébé Aïssa mi bokk na ci keneen ko bokk na ci te bébé Aïcha moom itam dafa am nu mu doon dundee fii boo koy xool sax ci ay sax li mu waxee ànd ak dëgg gi mu wax yëpp. Mm-hmm. lu baax li mu wax ci naar yooyu mais euh, problème de dépaysement am na ci mooy. Mm-hmm. Euh, diggante ñaari société yi. ñi kii li moo xam bébé ay sax xam nga xale la mi ngi fii doon dund nekk fii mm-hmm. léegi mi ngi demaat ci beneen société boo xam ne ñoom itam neneen la ñuy dundee yeneen culture yu ñu yore seen jigéen ñi duñu génn bu ñëwee ñu appliqué ci moom la même règle. ndax dafay tekki ni dañoo waajalul euh, connexion boobu. mi ngoog manaam dafay mel ni boo koy xool bee bàyyi sax boo demee Sow la sant wala ba. <laughs> mi ngi naan dafa xiif waaye boo demee ceeb bi mu fi doon bàyyi rek. <laughs> ceeb bi la namoon. <laughs> te ceeb xam nga dèjà foofa. fële ginaar yeeg ab lewetaay. waaw mi ngoog kon dèjà problème un boo xam ne mooy mooy ñëw di introduire boppam. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, nga gis mi ngi laa avion bi mu ngi koy door a dugg coono beeg yooyu. Mm-hmm. bon de donc da ngay gis ne kon dafa am yeneen yuy contribuer ci relation yi mhm. mooy un bébé Aïcha qui quitte le Sénégal pour aller au quoit mhm. wala mu quitte Sénégal dem Arabie Saoudite ci euh, culture yu xaw wute nag mhm. ci Sénégal gi ñu nekk ak Arabie Saoudite gale nga xam ne foofu la jëm euh, bu demee ci famille bu koy intégré euh, jigéen góor a góor doomu ndey presque duñu ñu gisante ñu mu nañ ci seen biir jabar yi kon jigéen gi nekk ci biir kër gi ñoom it dañuy appliquer la même règle islamique. ci Bébé Aïssa wala keneen ku mën a doon. donc finalement du tekki ni ay dóor la wala ay kaata. voilà mais tumuraanke goo xam ne xëy na yaa ngi koy. tumuraanke ci wàllu atmosphère familiale. familiale même boo ko xoolee sax ci suñu ba ci suñu mbokk sénégalais. Ah. man euh, dund naa euh, kii jëdda ci sama benn këru mbokk ngaarika ñu ngi koy nuyu bu baax mais kër gi dafa wéet. Mhm. malgré sénégalais la jabaram sénégalaise la. mais bu ñu xëy ñëpp dañuy liggéey. Mhm. kenn du nekk ci kër gi kër gi day wéet su ko defee boo fi nekkee da naan dañ maa enfermé. te mhm. aussi enfermement bi culture la. Mhm. maanaam dañu dul bàyyi jigéen mu génn. teg tànkam ci buntu kër gi. lu dul ma ànd ak jëkkëram wala ma ànd ak kii kon dangay xool ba ci culture boobu day joué. te tey bu ñu bëggee naan euh, dañu bëgg sax chauffeur. dañ naan euh, il faut mu ànd ak jabaram. pour que chauffeur bi mën a intégrer kër gi. man fi am droit dugg fi. Mhm. kon y a un problème de culture bi nga xam ne di posé wu. Mhm. ci brassage culturel bi nga xam ne moo nekk suñu diggante ak naar yi te mosuñu ko dund ñu dootu ko dund. su ko defee nag foofu man sama gis-gis. mooy aussi ce besoin euh, surtout ci wàllu wàllu euh, liggéeyu kër ak yooyu xanaa naar yi dañ dul liggéey. <laughs> oui no naar yi euh, dañuy liggéey mais xam nga aussi peut-être que li leen yàlla xéwal bu ñu ko yàlla xéwaloon itam fii ci Sénégal <laughs> mais am na jamono boo xam ne mm-hmm. euh, Alaaji Asan ah. dund ko yàgg nga suñu ene euh, nga ci mm-hmm. am na jamono boo xam ne sénégalais buy dem di liggéey mbi naan ci kërug sénégalais doonu toon lu yomb jamono boobu sax dañ daam bi naan la même chose bi ñuy wax tey mbi mm-hmm. naan du jaam dégg nga xam nga kon bët bi sénégalais doon xoolee mbi ba du nangoo dem day toog ci kër gi maanaam le fait que jigéen ñi toog ci kër gi weetaay amul foofu Sénégal la am. mais am na yeneen dëkk yoo xam ne demeewul noonu mais Amérique boo fa demee léeg-léeg. Hmm. da ngay nekk ci kër kër gi day wéet ndax ñëpp dañuy génn liggéey jigéen ak góor. très bien donc am solo trop problème boobu dafa ba ta bàyyi xel ci suñu relation non suñu relation yi. Hmm. nga xam ne ñu ne moomatuñ ko. Hmm. doonatul diggante El Hadj Macky Sall. Uh-huh. ak roi Salman. mais si diggante eh, peuple bi Mokhtar. Ah, ak benn hooy mil bu nekk fa fële di liggéey. Euh, ñuy gérer affaire main d'œuvre. dana ñëw ci wàllu main d'œuvre bi. ci dans les pays mm-hmm. yooyu kon. Mm-hmm. Euh, d'accord jërëjëf docteur doom baay Fadel ci ci ci wàllu waajal gi ak it euh, niñ ci war a taxawee pour brassage boobu daal euh, mu affaire yi mun a am symbiose. bu ko defee yëf jàll daal. dëgg la El Hadji Assane seulement nag duma duma du ma ma du du ma mën a tàmbali waxtaan wi. Mm-hmm. sans ma nuyu borom kër gi. nuyu téléspectateur TFM yëpp. jërëjëf di nuyu sama xarit Mamadou Ibra Kane di. ziar encore di yónnee nuyoo tamit suñu xarit sa xarit. Mm-hmm. Oustaz te Socé. jërëjëf di ñaan yàlla mu tegil ko nattu bi. amiin yàlla delluwaat ci liggéey yëpp. Mm-hmm. dellu ci njabootam bi jaay rasulillah. sallallahu alayhi amiin. Euh, laaj bu am solo nga laaj man yaakaar naa ni di naan waxtaan yi moom frank laayu na mm-hmm. ndax euh, bébé Aïcha bi wax sama yaram dafa daw xale yi nga xamante ni dañuy génn di dem moo xam Italie lañ jëm moo xam Maroc moo xam États-Unis moo xam Arabie Saoudite dara taxu leen génn dul daan doole. Mhm. daan seen doole moo tax ñuy génn euh, coow yi nag vraiment dafa bëri trop depuis quelque temps man dama mujj sax ni man lii vraiment daf ma jaaxal. puisque mhm. Arabie Saoudite ay ay nit yàgg nañu faa liggéey. man daanaka lu ëpp vingt ans ngi ni ma xam ay Sénégal yoo xamante ni ay chauffeur lañ fa. Mhm. Euh, Rafik El Hariri bi nekkoon premier ministre bu Liban. bi ñu faatoon am na fa benn usine boo xamante ni dafa da ci ay Sénégal ay centaines lañu ñu koy wax Saoudi. Gosé ñu ngi fay liggéey di jël congé di ñëw ñenn ñi yóbbu nañ seen jabar am na ñoo xam xamante ni seen doom màgg nañu ba mhm. remplacé leen ñu ngay dem di liggéey coow jibul mhm. am na ñoo xamante ni ay chauffeur lañ fa ñu ngay liggéey bu amul coow bu amul dara mhm. euh, Arabie Saoudite nag yaakaar naa ne bi xale yu jigéen yi sénégalais yi commencé dem pour di liggéey liggéeyu kër yàggul yaakaar naa bu ñu xoolee mënta passé cinq ans bi ñu ko tàmbalee léegi la ko waral mooy ñoom indonésiennes yi ak philippine philippine ak ñoo fa daan liggéey ñoom nag miinante nañoo naar yi da dem sax ba mujj gi sax dañuy takkante ñoom at yu mujj yi nag mu amoon ay cas yu fa am am na benn euh, benn bon boo xamante ni benn indonésien la dafa reyoon doomu ki koy liggéeyal pourquoi parce que daf ni léegi moom femme bi da koy maltraité ba finalement mënuñu koo muñ mu rey doom ji doom ju ndaw doo doom ju am cinq ans euh, am na ci ñoo xamante ni seeni i bon dañ leen di sàcc am ci ñoo xamante ni seen yaay yi nga xamante ni dañoo mag ba mënatuñoo dem fenn dañ leen di wutal ay bon yoo xam ne bu ñu ñëwee duñu fóot duñu togg duñu raxas mais pour jéem a wu ci seen yaay yi loolu lañ leen di doyee mais bu ñoom bu ñu liggéeyee ku góor ki ak ku jigéen ki am na ci ñoo xamante ni dañuy drogué mère bi drogué ko pour mën a libre ci kër gi nekk ñu leen neex <laughs> bi yooyu bëree nag ñu mujj ragal ñoom ñimeetuñu ñële ni léegi kon nañu essayé bu africaine bi ci la affaire yi tàmbalee ñuy dem di ñëw di yóbbu ak xale yi wax ji nag euh, comme ni ko Sembène waxee sànq ci Maroc ni mu xew ni mu amee Maroc noonu la amee fële Arabie Saoudite am na aussi même Sénégal ah mhm. bon téye bon di ko di ko di ko maltraité wala nga di ko yuuxu wala nga di ko di ko di ko néewal doole di ko toroxal ci kër am na Sénégal am na Arabie Saoudite am na France am na fépp il faut ñu bàyyi xel ci ni naar yi duñu ñu ay malaaka ay nit dañu mm-hmm. am na ñu baax si ñoom am na ñu bon ci ñoom mm-hmm. wax naa ni weddiwuma ni xale yi di ñu ñuy nettali nii fan yi di ko révélé ci presse bi bu amul parce que 93 maa ngi fàttaliku boobu ambassadeur bi fi nekkoon Abdallah Atoubéchi la tuddoon demoon na ba benn xale bu ñu jëloon Riyad benn princesse jël ko comme bon bi mu demee mu rëcc bi mu rëccee dem ci ambassade ba ni léegi moom lañ koo jàppoon foofu comme jaam di ko dóor di ko def nangam ak yooyu te moom bi ñu koy yóbbu dañu ko doon da ngay dem pour jàngale anglais naar bi dem ci ambassade bi ni léegi man musuma koo jëriñ anglais bu dee anglais rek kenn ñu ko. Mhm, fii dañ koo jëloon pour mu ñëw liggéey si. Mhm. xale bi bu ñëwee Sénégal mu dem ci ci presse bi. je crois bi yëkkataan yooyu suñu suñu mag maam Lees Diop moo fi nekkoon yore journal bu ñuy wax le politicien mu dem fa wax lu bëree bëri ci Arabie Saoudite maam Lees bind benn article bu on na ni léegi naar yi ba tey affaire njaam ma nga fay am affaire njaam nga fay am donc jot na pour ñu xoolaat li iranien yi di wax ni léegi nan jéem a décentraliser les lieux saints de l'islam puisque naar yi baaxuñu nangam ak nangam. ambassadeur bi à l'époque li mu def mooy dafa dafa arrêté tous les visas yi nga xamante ni ñu ngi ko doon joxe. umraak yëpp ni léegi tant que ministre de l'information bu Sénégal taxawul ci télévision bi euh, jéem a démentir wax jooju kenn du amati Mm-hmm. alaaji Moustapha Niang député Tivaouane yàlla na ko yàlla yërëm xam nga moom nit ko amoon ay action la mm-hmm. moo mobilisé mboolem association islamique yi fi nekkoon ñu dem ci ambassade ba rencontré ambassadeur bi bi ñu demee keroog man mii la wax ni ma waxal ak ambassadeur bi mm-hmm. li ma ko wax mooy excellence dama yaakaar ni yow da ngaa juum puisque da nga jaawalee la presse ci Arabie Saoudite ak presse ci Sénégal Arabie Saoudite rédacteur en chef yi ministre de l'information moo leen di nommé ay médias d'État ñu fii nag Sénégal démocratie moo fi am ak liberté d'expression journal bi bind lii waxuma la Arabie Saoudite waaye même président de la République sax dañ koy wax loo xamante ni. Mhm. di ñu gis lool loolu lañ koy wax. Ah. donc boo arrêté visa yi di nga lor jullit ñoo xamante ni. di nga lor ay jàmbur di nga di nga lor ay jàmbur. Ah. loola ginnaaw yàlla moo décanté situation yi. léegi nag fi may yee ci question boobu rek rek bu nga may ma ko. Mhm. mooy. Euh, man jokkoon naa ak ak ambassade bu Arabie Saoudite bi nekk Riyad. Hmm. li ñu ma xamal mooy ñoom li ñu seetlu mooy xale yi nga xamante ni ñooy jógee ci village yi moo xam joolaa wala séeréer ñu nga fa di liggéey depuis ay at waaye kenn du leen dégg ci dara. ñi ñu tuddee les filles branchées daal <laughs> les filles daal mooy ñi nga xamante ni toujours ñu indi coow. ñu jógee Ndakaaru c'est ça ñu jógee Ndakaaru dem fa bu ñuy dem. Ah. ñoom boo image c'est-à-dire léegi ni ñuy ni ñuy imaginer fa fële ci Arabie Saoudite diñ nin Dakar lañu yaakaar ni moom moom foofu soo sab dangal hmm. alors euh, yor sa portable <laughs> di connecté boo demee di yaakaar ni muy continuer bu ñu demee nag réalité ba ñu fay fekk comme ni ko docteur waxee léegi hmm. da leen di jox vraiment <laughs> alors déception bu mag a mag mag doo génn doo taxawaal loolu xew famille euh, kii bi la saoudien ak Koweït ak réew pays du golfe boobu yëpp même ñoom seen soxna yi noonu la ñuy def duñ génn. ok seen doomu jigéen ñi duñ génn. maintenant pour les cas avérés vraiment de soit duñ ko mën a tuddee ak ak mbon ak yeneen ak métital ñoom Arabie Saoudite l'ambassade naka la naka la ko euh, jàppee bi mu déggee xibaar bi wala boog lan lañ noppee def ngir quand même régler yenn cas yi nga xam ne quand même c'est des cas avérés euh, vraiment de de maltraitance. ñoom ambassade bi moom li ñu ma wax mooy ñoom yàgg nañoo taxaw ci loolu. nee am na saoudien yoo xamante ni ki ki ki euh, sama source li mu ma wax mooy am na saoudien yoo xamante ni bu ñu amee xale bu jigéen bu jógee Sénégal mhm. di liggéey comme bon euh, dañuy ànd ak moom ba ci ambassade bi même fekkente ni ambassade bi yëguñu ko parce que ñoom waxtaan ñi yóbboo ñu ci bëri tamit duñu coordonné souvent ak ambassade bi xaj na kii wut liggéey la ñuy coordonné la demee noonu bu ñu ñëwee dañuy ànd ak xale yu jigéen ñi ba ci ambassade bi ni lay kat kii Sénégal la jógee dama bëgg ngay jël sama numéro téléphone kër ma jox leen aussi xale bi tam bu bëggee téléphone mën naa koo wutal téléphone waaye nag du am téléphone boo xamante ne am de am écran parce que duñ duñ fay suñu xaalis ba pare. Mhm. yónnee visa fay lu nekk mu ñëw di liggéey di koy bàyyi muy connecté wu. Mhm. loolu la ñuy wax su ko defee léegi. Euh, ñoom dañuy xale yi dañuy jël ñoom di leen ci ambassade bi di leen defal di leen encouragé di leen encadré yi yi ci yëg mais da ci am xale yu jigéen yoo mhm. xamal dara waaye ku ci am problème aussi bu ñu ko yégee dinañ la taxawu mhm. jox la dund mhm. bon encadré la boo bëggee ñu aussi ñu jënd la billet nga ñibbi si Sénégal très bien daal ci wàllu ko aada gi rek la ñuy góorgóorlu bu ko defee ku ne xam sa morom li muy bëgg li muy bañ bu ko defee ak yëgoo mais ci ci wàllu économie euh, Bébé Aïcha ci ndax ndax liggéey ba jar na ko parce que aussi bu fekkee ni am na ñuy seetaan am xëy na bëgg-bëgg dem parce que ku ne am nga sañ-sañ boobu ah. ah dem immigré wuti ñëw pour jàppale sa njaboot ah. na fekk nga jaar ci yoon yu gën ah. euh, xam naa sax yu jotoo faa fayeeku ñaari weer parce que boo demee ma benn weer ak lu tegal nga fa def euh, ñaata la woon pay gi ak ndax respecté woon nañu salaire bi waaw benn weer laa fa am ak douze jours. Mhm. bi ma fa amee benn weer ak douze jours douzième jour bi ci laa quitté foofu dem ci ambassade ba. Mhm. mais premier mois bi la vingt ci ay cinq heures foofu. Mhm. bi may paase la ma mère bi woote la woo woo woo ma. ma wàcc daw si ñëw mu ne ma. su fi salaire yi salaire yi salaire yi <laughs> mu jox ma sama salaire ma dem vraiment xaarul ba la trente. mais lu tax nga bëggoon ñibbisi finalement man dafa mel ni foofu neexoon nag sama kër. noobul laa fa dama am samay raq am samay jabaru raq du ma def dara sama kaw lan laay toog loolu laa tàmm. Ah. vraiment xaw ma woon liggéey du ma fen mhm. xaw ma woon liggéey. bi may dem xam nga fa yeneen sénégalaises yoo xam ne ña nga fa ak it ndax gis nga leen ñu réussir fa ñu am fa jàmm. waaw parce que man bi ma demee ñi ma dajaloon ci avion bi ba ñu wàccee ku nekk dañ la ber. Mhm. man bi ma ñi ma àndaloon jóge fii Sénégal dem. bi ma demee gisante wu ma sax ak ñoom xanaa jour bi nga parce que booy dem dañuy dañu lay xool sa deret parce que am ndax amoo benn feebar buy wàllaate hmm. bi ma demee nag euh, benn naar bi ma jël si ci oto bi daje naa fa ak benn Gambien hmm. ak beneen euh, Euh, hmm. Inde. Inde ñoom waaw ñoom la parce que ñu ci ëpp ay Inde ñoo fa ne ay Philippines. Hmm. ay Éthiopia ñoom rek ñoo fa bëri. Hmm. parce que tamit ñoom tamit peut-être ñoom mën nañu liggéey bi. ay jàmbaar lañ ci ñun Sénégal nag vraiment ñun ay noble lañ bu ñu amul dara tamit ay noble lañ dañoo bëgg lu baax. xam nga bëgg noobale bëgg yooyu. vraiment boo génnee après ci ngay découvrir sama mbokk séeréer yi ngay wax <laughs> samay mbokk séeréer lañ samay kan lañu ñoom moom. bu ñu leen yóbbu rek <laughs> <laughs> dèjà Matar ci wàllu yóbbu gi euh, am na ay exemple de réussite ñoo xamante ni ña nga fa nekk seen jàmm di jàppale seen njaboot yi ñu fi ba euh, jaare ko bien évidemment ci agence yi est-ce que am nga ci exemple yu bari. waaw ñun moom euh, réussite yooyu bu fekkul woon ne daf ci am. xam nga nit ki lépp lu muy liggéey. bu fekkente ne xellu nga. Mhm. da nga koy natt ci ay pourcentage bu fekkente ne li ngay def yow li ëpp ci li ngay def. Mhm. lu baax la. bu ci déglu waxu nit ñi wala bu ci déglu waxu yàqkat yi. dëgg la xamal ni yow yaa ngi def pour sa réew yaa ngi def pour jàppale nit ñi. Mm-hmm. te loolu mooy li ci am. mais am na yoo xamante ni dañuy dem uti du ci duñ def benn erreur nag. Mm-hmm. mais duñu am wala ñu réussir wala dañuy ñibbisiwaat. loolu lu am la. dëgg la mais ci ci ci ci ci cadre boobu noonu euh, ñi ci bari dañuy dem liggéey. dañ ci am ba parce que bu fekkante ni euh, demewul noonu kon ñu ko xam ne lii nekkul lu baax mhm. mais réussite bi nga xamante ni moo ci am mhm. ëpp ci parce que Sénégal bokk na ci ci ñaar fukki réew yi gën a ndóol ci mhm. àdduna ah. donc ñun euh, Sénégal dafa metti réew mu ñàkk la dañoo soxla waaw dañoo soxla mel noonu voilà dañu léegi léegi ma jox la benn misaal bu ndaw euh, man ci li ngay ci li may yëngu wàllu mbindaan ñi ëpp ci mbindaan yi nekk fii ci kër yi Sénégal ñi ci fayeeku cinquante mille soixante mille lu néew la. te ñu ci bari dañuy paas ci cinquante mille yooyu ci la ñuy paas ci la ñuy ndekki dem liggéeyi wàccaat te yow fa ngay liggéeyee du la jël benn en charge. ci sa ci sa wér-gu-yaram ci sa loolu lépp mu métti donc ñu loolu moo poussé nit ñu bari ñu dem di fayeeku foo xam ne dañuy dañuy fayeeku cent cinquante mille paas du la ci fekk. Mhm. dara du la ci fekk. donc réussite boobu am ci. Mhm. moo ñu ci bàyyi ba dañuy touché foofu ba cent cinquante mille. dañuy waaw ba cent cinquante mille am na nu muy demee. Mhm. Euh, sa sa sa deux ans yu njëkk yi bu bu bu paasee. Euh, da ngay négocier ñu yokkal la. am augmentation salaire waaw dañ très bien kon salaire bi la parce que man aussi ci sama xel am na ci laaj bi doon doon tambaambalu boobaak léegi. lu tax ñuy bañ bi ndaanu fii bëgg ko dem nangul ko ci bitim réew. Euh, mais comprendre na quand même comme comme gaa ngi fii. voilà con conditions yi benn léegi hmm. yéen. Euh, cest à état tamit lu yeewu la. Mhm. dafay xam bis bu jot wala weer bu jot wala at mu jot ñaata ci ci doomu alal. Mhm. la sénégalais yi nekk Arabie Saoudite di Western Union wala ñu koy yónnee ci euh, banques yeeg yooyu ñaata mooy ñaata doomu alal mooy dugg. Mhm. ci biir réew mi tukkee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk. donc loolu tamit chiffre mu nekk ay chiffres yoo xamante ni. Mhm. ay chiffre chiffre bu mag a mag la bu am solo la fii nii ci ñoo xamante ni état bi wala euh, liggéey bi fi nekk. mënul mate nit ñëpp. dëgg la donc loolu moo waral nit ñi di génn. Mhm. loolu kese la. très bien léegi docteur lii lépp na lañ ko mën a valoriser wala nga nga baal ma ñu ngi may liyaar ne am na ko bëgg a bokk ci waxtaan wi docteur kaa ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. Euh, yow la kan. man waa kay sëñ Baba bisimilah. Ah, dama bëggoon participer ci émission bi. waaw ñu ngi lay déglu. Euh, ñooñu moom femme bi li wax moom lu am la. Hmm. waaw parce que man mosoon naa nekk si golf bi. Hmm. waaw lu mel ni Koweït dëkk boobu nekkoon naa fa. waaw. waaw parce gisoon naa fay xale yu jigéen yoo xam ne dañ leen doon tëj. man maa doon wàcc dem liggéey euh, utu lekk jox leen ñu lekk. Mhm. waaw am na benn instant <clears throat> ma bëgg fa bind benn livre sax ki ma nekkaloon ne ma noo jaru ko parce que fii boo ko fi génnee da ngay am problème. Mhm. waaw sama kilifa moo nekkoon ci ambassade bi bon donc ku si kuñ si ragalul ci ambassade moom dañ lay traité. Mhm. dañ lay maltraité. waaw loolu moom lu am la. dañ lay tëj wala dañ lay maltraité yow tëj bi mooy sa problème parce que gis nga di mem euh, naar yu jigéen it dañuy tëju. non du noonu man gis naa ñoo xam dañu leen doon tëj di leen jox lekk. Mm-hmm. Ah, foofu Koweït. waaw def naa Koweït def naa Arabie Saoudite. jaay mm-hmm. jaay léegi lan ngay proposer comme solution état bi kilifa yi lan nga leen xelal pour quand même canaliser tout ça. ñu bàyyi xel ñu fay yóbbu c'est tout. Mm-hmm. loolu rek la. docteur ci ci wàllu valorisation bi parce que moom ŋàññi nañ cas yi nga xam mooy li ma sax cas de maltraitance yi mais cas yi nga xam ni mu ngi génne xaalis mu ngi jàppale yi njaboot naka la ñu def ba gën ko valoriser. effectivement lu ñu war a valoriser la te foofu la ñu war a jëm. Ah. ndax boo ko xoolee tey Arabie Saoudite li muy représenté ci le transfert de devises. Mm-hmm. pour la main d'œuvre étrangère ci pays de Golfe day nekk quarante six pour cent ci boo dajalee. E pays de golfe bi ci li nga xam ne ñoo fay nekk ci main d'œuvre étrangère ñu di mm. leen defal ay devises ñuy dem ci seen réew yi Arabie Saoudite mi ngi occupé premier rang bi avec euh, cent quatre-vingt-quatorze milliards dollars entre deux mille et deux mille onze mm-hmm. Arabie Saoudite transféré na ko ci devise pour la main d'œuvre étrangère mm-hmm. mu dem ci bitim réew euh, yooyu nag day làmboo Euh, les femmes travailleuses day làmboo main d'œuvre technique. Mhm. Euh, xam nga avec euh, même dafa am développement. parce que ren 2015 bi rek nee nañ les experts économistes nee nañ affaire bi dana dem ba 159 mille milliards rial boo ko xaymaa day nekk 24 mille milliards de nos francs CFA. Mhm. loolu kon Arabie Saoudite mi ngi koy mi ngi koy def. ci euh, rang mondial. il occupe le deuxième après les États-Unis pour le transfert des devises. Mhm. Euh, léegi boo xoolee euh, xeet yi nga xam ne ñoo fay liggéey. Mhm. ci pays de golfe bi te Arabie Saoudite mi ngi ci bokk. mi ngi nekk vingt trois millions pour la main d'œuvre étrangère. Mhm. da ngay xool ci yenn réew yi nga xam ne ci biir golfe bi la main d'œuvre étrangère bi presque ñoo ñoo ëpp population bi. boo xoolee fu mel ni Qatar ak yooyu. Arabie Saoudite ci biir 23 millions yooyu Arabie Saoudite moo yor 10 millions yi nga xam ne ñu ngi biir Arabie Saoudite di liggéey boo xoolee Philippines Philippines ci boppam 40 pour cent euh, des Philippines yi nga xam ne ñooy liggéey ci biti. 40 pour cent yëpp ñu ngi biir Arabie Saoudite kon nag euh, Inde. ñoom xanaa du ñu am même jafe-jafe yi ñoom kenn du leen dégg wala wala ñu ngi am jafe-jafe yi. waaw xam nga euh, communication dafa baax. ak nit ki intention bi mu am. Mhm. xam nga Philippines dafa nekk réew mix boo xam ne ñi ay jullit lañ ñii duñu jullit. Arabie Saoudite am nañ yéene encouragé. situation bi fa nekk. de mhm. pauvreté di ko contre et di jàppale aussi ña fa nekk dañuy jël sax ku doon jullit indi ko muy liggéey du seen problème. Mhm. dañuy jël ku nekk jullit aussi indi ko muy liggéey loolu Arabie Saoudite dañ koy def dañuy jël seen main d'œuvre technique indi ko muy liggéey si. donc yooyu yëpp dafay nekk. ay yéene yoo xam ne day jaar diggante Arabie Saoudite ak yeneen réew yi depuis Faysal xam nga Faysal ni mu am amoon yéene mhm. ci réew africain yi ba ñëw Sénégal mhm. jógee fi dem génne maanaam bi mu ñëwee dégg naa bi mu demee Guinée ba gis taw bi gis verdure bi affaire bi mu ne mu ne mu jàpp ne ñoom am nañ xewal mais ñun itam am nañ xewal gu rëy a rëy mhm. ngir taw beeg kii beeg yooyu kon foofu Euh, bu ñu xoolee lu mel ni indiens yi philippines yi Sri Lanka Bangladesh ak yooyu ak certains pays africains ñooñu ñu ngi ci marché bi c'est un marché mondiale boo xam ne. Hmm. même tubaab yi sax dañ koy soxla. Hmm. kon léegi ñun Sénégal. ak ni ñu mel ak Arabie Saoudite ak seen buur bu bees bi ci ni ma ko gisee man dama defe ne liy gën mooy ñu valoriser ak i boobu te Sénégal fas ne jël occuper place am mais avec organisation et formalisation yoo xam ne mhm. day àgg sax ci boroom réew mi mu wax ak ñële uh-huh. nga xam ne aussi dana ma nekk am xëy moo xam ne wallaay fam uh-huh. fam yu bëri yu ndool yi ngi ñu nga nekk ci biir Saloum mhm. yi nekk biir Fouta yi nekk euh, Casamance uh-huh. nga xam ne mën nañ daan seen liggéey liggéey ba ñuy fekk Arabie Saoudite day oyof ci ñoom te moo leen di gën a apporteel mm-hmm. te mën nañ muñ ñooñu te bu ñu demoon Italie nangoo muñ mm-hmm. bu ñu demoon Espagne nangoo muñ bu ñu demoon Amérique nangoo muñ <laughs> da ngay gis koo xam ne day am ñaari liggéey ñetti ah, liggéey ah, ah. Amérique du nelaw noonu la ñuy def quinze minutes la ñuy nelaw pour demaat yow nga dem fële <laughs> mën a nelaw douze heures wala dix heures mm-hmm. naan damay liggéey ba minute damay sonn docteur ñu jël kenn ci téléphone bi euh, ñëwaat asalaamaaleykum allo maaleykum salaam maa leen di fay. waa bisimilah waaw xam man dama miin tuuti Koweït moo ma intéressé. Koweït yow nga bëgg a wax yow tamit. waaw parce que Koweït moom miin naa ko wax dëgg yàlla. waaw. si je mais Aziz ah, te bu fekkee dama bëgg a wax xale bu jigéen bi dem Koweït. Mm-hmm. ak ñi mel ni moom te xëy na mën nañu xëy di dem Koweït ñoo tax may wax. Euh, ni ma koy gisee nii muy wax ak ni ma doon déggee li doon waxee ci moom. Mhm. dafa mel dafa tranquille kenn defu ko fa dara. Mhm. te melul noonu tout à fait melul noonu. Mhm. foofu euh, jigéen ñi euh, jigéen ñi fanaan dem waa Sri Lanka la waa Inde waa Philippines surtout bari nañu. alors dañuy am effectivement ay sponsor ñu jël leen yóbbu di leen fay yor leen nangam sàngam loolu yëpp dëgg mais naa di jubuñu lool. Hmm. ce qu'il est en train de diir damay bañ ni mu ko waxee mu dal xel lool pour ñeneen dégg ko rek yombal ko lool ba jël seen bubu dem ci euh, ca dëkk ba noonu. Hmm. man mag laa Sénégalais laa jullit laa xam naa fa bu baax. Hmm. man jàpp ma musuma jàpp gis naa jigéen ñi dem foofu ba tàyyi ñoom waa Philippines ay ñoom ñeneen ñi ñeneen ñi mais musuma gëm ne une femme sénégalaise mën naa nekk foofu Mbidra. Mhm. c'est difficile c'est ah. extrêmement difficile. ci ah. téléphone la ñu nekk et il faut respecter. Très certaines bien. relations diplomatiques entre pays et pays. voilà c'est important ñoom dañu c'est très important. ñoom dañoo yor seeni seen culture ñu yor suñu nit ñi ni ñuy yaakaaree ne rek ni ñuy waxee du noonu. xaalis yomb dafa nangam jàppal bàyyi non non non non. Mhm. très bien man seetlu naa fa toog naa fa lu bari di dem di dikki di dem seetlu naa fa man musuma fa dërëm musuma dox foofu ba fa dërëm. Mhm. et dama j'avais fait la remarque xaalis du ñu ko foyee nit ñi bëgg nañ ko lool fonk nañu ko. Mhm. te ñun fii ni ñu jiitale yàlla eh, du fu ne la am de. dëgg la jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay gërëm am na solo trop euh, Fadel je suis tenté xanaa dafa mel ni Arabie Saoudite euh, moo gën wala moo taneegum ci ni ñuy wax gars yi daal ragal nañu Koweït bon euh, sans pour autant nag gën a xóotal ci mbir yi parce que c'est ba tey rek suñu version contre xëy na yeneen version waaw. dëgg la mais mm-hmm. am na particularité. Mm-hmm. particularité bi mooy diine ji ak it aussi bu dee lu ñu concerné ñu en tant que ay sénégalais. place bi ñu jox Sénégal. El Hadj Moustapha Cissé barki démb rek ci benn plateau maag moom ñu ngi boole benn kii muy waxtaan nee na moom bi mu fi nekkee ambassadeur nekk na ko fa deux fois dañoo bëgg sénégalais ba même sax quatre séjours yi nii bu ñu la jàppee ñu ne sénégalais dañ lay bàyyi ah. ba mu fa nekkee moom donc am nañu kii bu ñu jox Sénégal bu baax a baax ñi nga xamante ne aussi tamit ñu ñu ngi jaxasoog ñoom muy ñuy liggéey ci ci affaire prédication wala même comme d'affaires yeeg ñëpp li ñuy remarqué mooy Arabie Saoudite bokk nañ ci ñi gën a généreux ci pays du wax dëgg yàlla c'est-à-dire boo xoolee li ñu réalisé ci ci àddina bi. Mm-hmm. de manière générale et mais particulièrement ci Sénégal ak fii ci Afrique mm-hmm. réew na néew na réew mu ko def ci pays du Golfe mm-hmm. diine ji aussi joué na ci bu baax a baax lislaam bi éducation bi li nga xamante ni moom la ñu xam ñoom ak ni ñu xamee étranger ñoom ndax aj ji ak umra bi contact bi am entre ñoom ak ba étranger nekkul ku tumranke si ñoom aussi ñoom am nañ bu ñu fàtte am na ay saoudien noir yu ñuul kukk yoo xamante ni maa yow ba El Hadj ni nga ñuulee noonu noonu lañ ñuulee bon euh, donc ñoom amuñu problème mu étranger ñoom su ko defee léegi li ciy nekk rek mooy yàlla kiy dem yàlla na am chance te seeg famille bu baax ndax it nag euh, man li ma li ma seetlu waa ji wax sànq njëkk a wax li mu wax dëgg la c'est-à-dire euh, femme sénégalaise dafa fière li indonésienne di nangu. éthiopienne di ko mm-hmm. nangu. ci toroxlu gi toroxlu gi ak nangu gi. Mm-hmm. sénégalais mënul loolu. man dama doo wax sax ni man vraiment sénégalais yi. Mm-hmm. xaj na am na ci ñu am chance ñoo xamante ne dañu tase ak famille yu baax ñu accueillir leen nag demee noonu mais. même fii Sénégal da gis xale boo xamante ni day liggéey su ko patronam yu xoo rek day daal di gis boppam. bon fierté boobu nekk si ñoom. moo tax sànq waa ji ni ñee waa Sri Lanka ak ñooñu di ñu nangu moom mës a xalaat ni Sénégalais di dem foofu di liggéey ci Koweït. mais nag. bu ñu fàtte ni nit ñi ne ñu benn. Mhm. lii Moxtaar wax sànq ni boo fa nekkee doo fere dara mais même brosse à dents ñu la koy jëndal. ñu lay defal lii boo feebaree ñu lay fecc li ñu lay jox sa salaire dërëm du ci génn chaque fin du mois la koy versel ba am na ñoo mhm. xamante ni ñu nga fa waaye ñu ngi commencé tabax seen i kër. dimbali mhm. seen i waajur. loolu moo tax. donc man li ma gis mooy li nga waxoon sànq ni nan lañ koy valoriser rek moo moo ci am solo. Mhm. nañ seet duñ ko organiser. organiser surtout mu leer nañ fexe ba associer tout le monde. Mhm. réew yu bëree bëri bu autorités yi dañuy fexe bay siyanteeg waa Arabie Saoudite. Mhm. ay accords yoo xamante ne dañuy may seen waa réew. ñuy dem foofa. di liggéey liggéey yu wuute ah. ni ko état bi defee Fadel ak Qatar par exemple. c'est très bien organisé concernant euh, le corps médical là. c'est ça bu ñu ko lawalee fépp rek mu baax dëgg la même ambassade euh, euh, Arabie Saoudite bi nekk Riyad bi ma jokkoo ak ñoom mhm. loolu la ñu wax nee na ñoom bi ñu souhaité mooy ministre du travail bu Sénégal ak bu bu Arabie Saoudite nañ fexe ba signé accord mhm. accord boobu su xasee am ñoom sénégalais bu ñëwati foofu dinañu am adresse am dinañu am am droit toppatoo ko nemmeeku ko ba xam lan la nekkee. Hmm. mais tant que boo accord yi amul. xañ na peut-être ñoom ñi nga xamante ne dañ fay ñëw di di di di def seen di di annoncé woon ni man am naa. Hmm. xale bu jigéen bu ñëw sama kër numéro téléphone am ngi hmm. am problème. wala boog mu nekk ñoo xamante ni ñoom ñi ñi ciy liggéey. am na ay saw jee yu ñu xam. yoo xamante ñu nekk fii Sénégal dund fi lañu. am nañu kersa ci jël xale. di ko maltraité a ko def yenn yi di ko xam di di di ko dégg. ñu jël kenn ci téléphone bi asalaamaaleykum waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar soxna si. ñu ngi doole ziar bu baax sëñ bi. bisimilah. dama bëggoon a bokk ci émission bi. waaw. man mi yóbbu woon naa fa sama rakk. Mhm. Arabie Saoudite. mais nag xam ne nit ñi dañoo yam dañoo bëri te bokkuñu. Mhm. sama rakk liggéey na foofu ba bu ñu ñibbisee Dakar gii moo tabax sama yaay kër gi ñu dëkk. Mhm. te lu ne lan ko fa doon def. mais daf ko muñ xam ne liggéey moo ko fa yóbbu ak xaalisam bi mu fa soxla. li am Arabie Saoudite moo Dakar la ëpp. Mhm. liggéey naa dakaar man su añ jotee dañ may ber ci palaat liñ ma fiy tibbal du ma tax ñetti kuddu. Mhm. barke Mouhamed ma yaakaar. nga rawal. mais xooluma ci dara dama ci xool sama salaire bi ma ci am muy cinquante mille may fay. dëgg la ma man cee dindal sama yaay saaku ceeb wala litre dëwlin. loo tax may conseiller sénégalais yëpp pour manti dem liggéeyi. bu ñu xool lan leen fay def. Mhm. nanu xool li nga xamante moo leen fa yóbbu ñu liggéey indil seen waajur. loolu rek ku ko def foo dem ëllëg di nga tekki. Mhm. Dakar sax dañu koy def bu xam tuma laa feneen. dëgg la. yàlla baax na pour Sénégal ne ak keneen ak keneen fu mu mënti nekk góorlu dina tekki ndax kër gi ma dëkk tey nag sama yaay sama papa sama rakk moo ko tabax te Arabie Saoudite la demoon liggéey rek. Mhm. nee na da daan toog ñu koy dox dagg mburu fukki dërëm ñu koy xaaj ci digg bi moom la doon ndekkee. mais neen dafa ko muñ am fa weer chaque weer deux cent mille mu dem ba càng yokkal ko deux cent vingt cinq mille tey mi ngi ni ñibbis na ba investir Dakar. Mhm. loo tax may wax képp ku bëgg a dem na dem mais na xam la ko fa yóbbu. Mm-hmm. bu mu complexe fekkee liggéey moo ko tax a jug rek. na def liggéey indi mm. li mu am su dikkee dëkkam noobul la fi doon Sénégal. dëgg la jërëjëf. jërëjëf soxna si jërëjëf euh, liggéey dañ koy jaamu ah. ba ci entreprise ya ah, nit da ngay sa liggéey tant que daal euh, entamé wul sa dignité waaw lu xoosul sa dignité euh, mu sa patron nag mënoo <laughs> mënoo bokk ak moom si jaada ba ngay farankulaayu sëñ Matar ci ci wàllu yoon yi nga xam moom ngay conseil ndaw ñi fi ñu war a jaar yoon yi yi gën parce que tam am na bëgg a tukki mm-hmm. naka la ñuy def ba sécuriser yoon yi daal ñu bàyyi làqatu gi ndax xamuñu tamit nëbbatu moo ñuy jural yenn yi dañ naan la booy tukki bu ñu xamee foo jëm doo yegg dañ may catu ba ba foofu dugg nag ci gaal goo xam ni gu bari vitesse lay doon waaw loolu xëy na ñi ñi ñi ñi ñi ñiy nëbbatu du ki lay yóbbu de uh-huh. <clears throat> souvent nëbbatu gi mooy ki bëgg a dem Sénégal moom réew la moo xam ne mën ngaa bokk ak nit ndey ak baay <laughs> mu xëy dégg la nga Italie wala mu xëy dégg la Europe wala mu xëy dégg la sax Arabie Saoudite mm-hmm. loolu culture la boo xamante ni bu ñu am la bu ñu xam la fii Sénégal dëgg mais euh, dafa war a génn ci ci ci secteur boobu noonu euh, ñu dafa war a nekk loo xamante ne lu professionnel la mm-hmm. euh, parce que am na ay agence yoo xamante ne ñu ngi fi jaar fi ñu war a jaar ba taxawal seen agence mm-hmm. ci lépp luy këyit ba taxawal ko ki nga xamante ni moom war a dem mu war a jaar ci agence yooyu mais am na ñoo xamante ni ñu ngi ciy suturlawu mais amuñu agence mais ñun ñiy yore agence ëpp ñu ëppalewuñu leen dara. Hmm. gëluñu leen a xam réew ma. Hmm. heure bu la neexee nañuy dem Arabie Saoudite dañuy yóbbu foofu ay nit mu am problème ñu taxawu ko léeg-léeg sax ñu taxawu ko ci façon boo xamante ne mooy bi gën bi agence bi. Hmm. Euh, euh, agence agence bu la yóbbu. ñooñu it dañuy am foofu ay visa su ko defee ñun borom agence yi day parfois nañ leen di jàppale di leen ko génneel. Mhm. parce que xam nga ni kii lii mën na ko. parce que agence yi moom kenn mënatul dem Arabie Saoudite liggéey te jaaroo si ñun. mais léeg-léeg ma gis koo xamante ni kii am na capacité bu toll bi ma am pour yóbbu fa nit. mu am visa am su mu ñëwee ma génnal ko mu yóbbu ndaw si te boobu laa koy gëj dégg ndaw si dina am problème moom dina ko gérer dina ko lijjanti ci façon am ba problème ba. Mhm. yemb. kon de façon globale situation bi c'est c'est pas encore alarmant c'est-à-dire que amagul lu jar a waaw li jar a tiit mooy euh, ci ki la toujours tiitaange gi mi ngi nekk ci ki nga xamante ni rek mooy li ma wax mooy la yóbbu rek parce que euh, li sonal nit ñu bari mooy nga am sa mbokk mu dem naar bi moom it bëgg lu yomb ak daw fere mhm. yi mu war a fay agence beeg yooyu ne la indil ma fii kenn su ko defee léeg-léeg sax dañ koy wax jànq bu fa ne jànq bi ne ci kër gi mu ne dama bëgg nga indi ma sa benn morom pour mu liggéeyal sama yaay wala mu liggéeyal sama sœur. Mm-hmm. nga def ay démarches ba ndaw soo sa ñëw ndaw soo bu amee problème. yow mi nga xamante ni yaay intermédiaire bi tax mi ñëw. Mhm. amoo capacité pour taxaw ko. Mhm. wala ki nga ki nga xam ne moo tax bu mu ñëw. Mhm. déggantewul ak naari làkk. amu fa benn loxo. xamul sax ambassade bi. fan la féetee loolu waaw loolu yoon voilà. ñoo xam ne tànn daal na am na am capacité. dëgg la nga xam ko ci. ci secteur xam nga métier gis day am ñu ciy rax di yàq filière bi. waaw loolu am na boo gis rek na ñu ngi may wax ni am na keneen ci téléphone bi monsieur le maire Adama Ba moo jiite woon jamono mairie Fass Colobane Gueule Tapée monsieur le maire maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu El Hadj jërëjëf euh, lan nga ñuy dolli ci waxtaan wi. ah li ma waxtaan ne waxtaan moom ñu mun tëddee benn boor ndax ku ne dafa am loo ciy xam rek. Mm-hmm. ñooñu ñaar ñu toog di wax. Mm-hmm. ay nit ñu baax lañu rek c'est des porteurs de bonne parole. Mm-hmm. laaj leen ñaata jigéen a fa ne ci kaso bi fi mu ne nii nañ jox statistique bi. maa ngi lay jox benn lu wóor te du ñoo am nga gis xale bu jigéen buy liggéey ci benn kër naar nekk fa lu mot juróom benn weer wala juróom-ñaari yéen weer bi day ñibbi ñu ñu ak waaw ki génnul ci kër gi demul dikkul saagam bu ndaw la am na ci biir kër gi bu sàccee ay million ndax mënta ne ci biir saan bi te dañ bu ñu la yóbboo dañ lay tëj mm-hmm. deuxièmement am na si man ki xam naa fi ñu ñu fa te buñ la jàppee ci digg bi ngay dox noonu doo dellu sa kër kaso nga jëm te amul kenn ku mun a wër ba fekk su ba xam sa yow fuñ la tëj ba ñu xëy buub la noonu ñëw sànni aéroport ndakaar ak sa benn complexe nga ñëw fi doo am dara te man am naa ci ay firnde yu wóor parce que émission bi tudd ci ay tur yu wóorul waaye ñi may wax nii su ñu déggee sama tur nañu waxal seen bopp intervenir naa ci du benn du ñaar. kon nag ñii ñu ngi wax lu rafet waaye côté bu rafet bi lañ wax nañu wax côté bu actuellement nañu wax ñaata nit a ne ci kaso bi ñoo xam ne liggéeyloo nañ leen ba ñibbi jot ñu laaj ñu laaj seen xaalis ñu actiser leen sàcc ne sàcc nga lii sàcc nga lii daal di gëpp yóbbu police yëpp tëj nañ la fa yaa ngi ca kaso ba ñëwaguñ hmm. ah man nag euh, de toutes les façons man encouragé wu ma kenn pour mu dem Arabie Saoudite. ok li li ñu may chance ci Arabie Saoudite rek mooy sang bu tedd ba la mu tëdd ci suuf sa foofu. Mhm. waaye képp koo xam ne kii dama ne képp ku bugg a liggéey. toogal ci sa réew mi nga liggéey ceebu jën maafe dëxin dara jënd koo yomb ci sunum réew boo fi demee uuti ko fay bi am na ñu ñu ngi am na ñuy déglu émission bi nañu dugg. Mhm. ñii nag maa ngi leen di gërëm. jërëjëf parce que nag diplomatie dafa laaj loolu diggante hmm. réew bi yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëdd ak sunu réew. Hmm. wax ci rafet rek a baax. mais am na beneen côté boo xam ne bi xëy na ñoom seen seen dignité ak seen valeur moo tax mënuñ ko wax waaye man li may wax xam naa ko te bëgguma tuddi tur te bu ñu weddee bu ma paree ma duggaat mbaa ma woo ay nit ne leen léegi wax la si yéen ñëw ci man ñii ci des maa dem ba ci président ñu dimbalal ba ñu ñibbi si wasalaam. jërëjëf monsieur le jërëjëf moom euh, comme ni ñu ko waxee <laughs> waxtaan wu ubbeeku la bu yaatu la am na ñoo xamante ne tiitaange lañ ci am am ñoo xam ne tedd nañu fa dégg nga soxna sos wax ni ñoom tabax nañ ci kër fii donc nees mën a def rek ba dindi ci li bon yokk li baax je pense loolu docteur mooy mooy waxtaan yi il faut que il faut que kilifa yi jëlal seen bopp nag yëf yi aussi il faut que vraiment parce que état nag loolu lay jëriñ yaay njaboote ñëpp euh, ñu ngi koy def naam ni ma ko waxee maa ngi joxe exemple Qatar sànq waaye il faut que ñëpp jàpp ci bu ko defee état bi gunge nit ñi nit ñi itam neex a neex a fat ndax boo génnee sa réew da xam ne nekkatoo sa réew aussi yooyu yëpp c'est tout c'est tout un ensemble eh mm. oh, waaw doo mën a xam nga problème société moom mm-hmm. euh, da ngay day naqari nga euh, établir benn règle boo xam ne dafa nekk lu immuable mënul mm-hmm. nekk dans affaire sociale sociales moom euh, tout le temps y a y a relativisme mm-hmm. maanaam da ngay relativiser tout le temps mais règle boo xam ne day nekk lu immuable ñu ne nii la tëddee. Mhm. loolu kenn mënoo ko am ci benn société. Mhm. mënoo ko am ci bu Sénégal. mënoo ko ci bo ci Arabie Saoudite mënoo ko am ci beneen. Mhm. par exemple comme euh, kooku doon wax boo calcul boo xalaatee ci li may wax rek ñi nga xam ne dañ leen rapatrier indi leen. te doo xam origine ba. cause ba lu tax mu ñëw lu tax amul salaire xamuloo naar côté naar bi itam moom itam lan lay souffrir. mais ko maanaam euh, ni ngay xalaat sa bopp. comme ni ngay xalaatee ñeneen ñi. Mhm. wala nga xalaat ci ñeneen ñi comme li ngay xalaatal sa bopp. Euh, parce que euh, contrat moo leen lii. Mhm. te culture yi du ñu benn comme li may wax toujours tout le temps. Euh, kon man ba léegi gisuma loo xam ne c'est tellement alarmant. ok même bu fekkoon ne sax toll na foofu. Mhm. li ma gis en tant que mbokk jullit diggante réew ak réew Arabie Saoudite ak Sénégal. mooy ñu dox. defar ko ba ñëpp ku ci nekk mën a jëriñ sa morom. ndax Arabie Saoudite. mi ngi am na lu sox lu mu soxla ci Sénégal Sénégal am na lu mu soxla ci Arabie Saoudite mhm. euh, la preuve en est dafa am benn euh, économiste saoudien mhm. boo xam ne moom da doon prôné pour que affaire bi main d'œuvre étrangère bi ñu arrêté ko parce que devise bi muy jëlal Arabie Saoudite di ko yóbbu ci biit te du dellu mhm. kooku ñoom vraiment chaque jour day yokk ba ren ñu ne dem na dana 2015 dana dem ba cent mhm. cent cinquante neuf milliards xeetu fuite de capitaux lañ ko jàppee mi ngoog waaw ñun tamit daf ñuy dal de du ma tudd benn xeetu ci Afrique sow jant ñun tamit dañuy bàyyi ah. euh, njaayum café meeg guro beeg socc yi euh, ñoom yeeyaa ñi ak xaalis ba leen ko doon defloo tey donc ñeneen na ñëw def ko mhm. daal ko yóbbu euh, expatrié seen seen i réew loolu aussi ñoom it arab yi nañu xoolaat seen bopp ku nanguwul main d'œuvre benn biir di ko wuti feneen non mais dafa amoon beneen économiste moom beneen version la ah. la beneen xalaat bi la jël mooy xalaatu euh, kii li mooy xalaat Euh, day day day mel ni day gént. Mhm. parce que lu tax day gént ban ara benn saoudien mooy ñëw di nangoo bale mbedd. ban ah. saoudien mooy nango dem ci kër yi di liggéey. ban saoudien mooy def nangam ak nangam. Mhm. te aussi euh, nañu bàyyi xel ne développement bi nga xam ne moo am ci wàllu constru infrastructure. Mhm. ci biir Arabie Saoudite yëkkati ko yëkkati ko na koo xam ne. ñoom il faut ñu def appel. à la main d'œuvre étrangère donc. moo tax il faut a xalaat. waaw yéen boo amoon may ñu profité waaw moom waaw. man yaakaar ni mooy li nga wax sànq rek. Ah. fexe gën a organiser affaire bi. suñu autorités yi vraiment nañ ci dugg. Ah. vraiment jël ko fexe ba naattangoom suñu ministre du travail bi fi nekk ni actuellement. naatangoom Sow Dieng aussi mu fexe ba vraiment gisee moom benn mu invité ko mu ñëw wala moom mu dem fa fexe ba accord yooyu ñu signé ko parce que nag réew yu bëree bëri mhm. c'est des autorités yi noonu la ñuy def di profiter ci loolu mhm. bon monsieur le maire li mu wax sànq vraiment man euh, damaa xam ne tuuti ma abal sa plateau laaj ko ni ko cas yi mu wax ni ñi répa ñi nga xam ne dañu doon liggéey ñu mhm. répartir leen te fay ñu leen seen xaalis complexe ban sol la ñu wàccaale bon docteur am am na lu ñu tudd waroon nañoo xam lu tax loolu am. bon comme xamuñu ko aussi loolu de bëggul woon tamit xam nga weer yëf yi ndax. comme ci télé nekk bëggul woon kenn mu ne. da ngay bañ loolu laa gis parce que ah. Sénégal mm-hmm. loo ci mën a dégg xale yi bëgg nañu liggéey uh-huh. comme léegi am na opportunité foofu nañ ko jéem a rek fexe ba mu tegu ci yoon ñii di organiser ñoom Moxtaar am ay ay agence nañ fexe bay coordonné ak consulat ba nekk Jeddah mhm. ambassade ba nekk Riyad fexe ba sénégalais bu dem wala sénégalais bu dem puisque am am nay chauffeur am na ay mbindaan mhm. ñu fexe ba xam fa mu nekk fan la mhm. problème bu mu bu mu am ñu nemmeeku ko ba xam lan lay dund ndax mi ngi ci jàmm wala nekkul si jàmm loolu je crois bien que su xasee ba am rek xale yi mën na leen encourager ñu dem daan seen doole parce que dara nekku nekk Inde rek plus de 4 millions indiens ñu nga fa di liggéey. bon euh, chaque année dinañ seen transfert li nga xamante ni moom la ñuy li ñu tuddee euh, transfert devise. devise 30 milliards dollars. dina jóge foofu dem Inde. Inde rek laa wax de. bon waxuma Philippines waxuma euh, fële Éthiopie waxuma. yeneen réew yi nga xamante ni Malaisie ak yu demee noonu. ñoom ñëpp ñu nga fa di liggéey ay milliards. Mhm. loolu léegi nag loolu vraiment bu ñu ceeyee Sénégal yi aussi mën mën nañ ko am. am na xale yu fa nekk gaa am seen salaire. Mhm. yóbbu seen soxna yóbbu seen kër nekk seen teranga. Mhm. chaque année day ñëw fii vacances. defi fi un mois wala deux mois delluwaat. Ah. ñu ñu ngi seen jàmm. donc kuy kuy aaye xale yi aussi na nga fexe bàyyi xel ñooñu. Mhm. ña fa nekk nekk si jàmm. ñu fexe ba ñuy dem ñëpp bu ñu demee nekk si jàmm je crois bien que loolu moo ëpp solo. très bien euh, Bébé wàllu consulat yi ki fa toogal Sénégal yow nee nga fa nga fa nga jaaree ñibbisi ñoom ñu ngi ñu ngi taxawu sénégalais yi ñu ngi leen di bàyyi xel wala. ñoo ñoo la paasal. ñan ci. bi ngay ñibbisi ku la paasal. non waa ambassade passé ñu ma. Ah. vraiment ah. damay en arrière tuuti ci ginnaaw. parce que waxtaan bi dafa am solo. Mhm. da nga dem ci kii dem ci kii ñëw ci kii tëb ma dem ci kii. <laughs> xam nga euh, am na ci ñoo xamante ne foofu <laughs> ñu ngi dajeeg naar yu baax. ñaar ñu jullite. Mhm. ñu gëm Seydina Muhammad. ñuy def lu baax ci nit ñi mais am na ci ñoo xamante ne aussi baaxuñu. Mhm. ba ci am na ñoo xamante ne dañuy ñëw fekk la ngay tuur mbalit ñu sàcc la yóbbu la jaay la ñeneen. ñu def la lu leen saf. ñu rey la wala leneen te ñooñu ñu dégguñu seeni i dégguñu seen i mbokk. donc tamit képp koo xamante ne yaa ngi waaj dem. neew ma kenn bul dem ndax am na ci ñoo xam ne seen i wërsëg foofu la nekk. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne seen i wërsëg fii la nekk kuy dem. na nga dem ci lu leer ci lu leer nañ xam fi ngay jaar xam fi ngay dem boo demee boo gisul loo xam boo mënee muñ ku nekk ñii yàlla may na leen xol muñ ñii munuñu muñ mm. lu ndaw soo ko gisee ñu gis seen bopp mm. kon donc képp kuy dem na nga dem ci lu leer. Mhm. ci lu leer naññ bu fekkee ci agence ngay dem comme genre kii moom wax na fi sànq lu leer nee na moom képp ku fa nekk. Mhm. nekkoo ci jàmm dina def la tout changer la keneen. wa ilaa mhm. mu xam ne yow yi problème bi ci yow la ne. moom ci boppam dina la daggal billet nga ñëw. man ki ma yóbbu du moom moom ma daggal billet pour ma ñibbisi. du waa ambassade ba ñoo ma daggal billet pour ma ñibbisi. mais Moustapha mi fa nekk saw nit ku baax la. ndax bi ma amee sama problème ba fexe ba bulbuloo naaw. ma daw yegg yóbbaale wu ma dara lu dul li may liggéeyee Moustapha moo ñëw fayal ma taxi bi. Hmm. fat ma ci biir kër gi. yor ma jëndal ma lekk doomu Sénégal doomu Sénégal la Moustapha Sow la tudd ambassadeur ba nekk nit ku baax. Hmm. ki koy dawalal otoom ak Aïssatou Sané nekk nit ñu baax. Hmm. ñu toppatoo ma may lekk may naan nekk sama jàmm pendant huit jours yi ma fa ne. ba yëre yi ma doon sol sax ñoo ma ko jëndal. kon donc waa ambassade ba tamit ñu ngi ciy def liggéey boo xamante ne bu am njëriñ la. Moustapha tamit toogul lekkul naanul te ku mu xam ne yaa ngi fa nekk ci problème. dem du lekk du naan du nelaw hmm. lu dul lijjanti nga ñëw ci ay loxoom mu hmm. fexe say parents daggal la bee nga ñibbisi euh, kii bi nuñ nuñ koy waxatee hmm. euh, ambassadeur bi sëriñ la doomi sëriñ Fàllu la waaw sëñ Abdoulahat Fatma biroom waxtaan ak man yëkkati xaalis bu bëri may ma gàcce ngaa ma yow sa liggéey rafet na man damay wax ne nga yàgg fa te wér amin amin Mbacke Balla waaw doo doy def <laughs> nekkee def nga sa dédicace léegi léegi Mactar euh, sëñ Fadel mu ngi wax ci wàllu coordination bi ak consulat yeeg ambassade ak yooyu loolu tam foog naa ni pour rek accompagnement bi gën a yokk daal ndax lu baax tam du doy il faut toujours di améliorer. waaw ñun euh, loolu nekkoon na suñu jafe-jafe. Mhm. Euh, nekkoon na suñu jafe-jafe parce que euh, comme li mu wax rek loolu loo gis lu nekk dafa am lu ko war a laltaay. gis nga ñaari réew yi bu fekkante ni signé woon nañ accord comme bi nga xamante ni moom lañ signé entre Sénégal ak Qatar. kon loolu dafay dafay gën a yomb. dëgg la mais souvent ñun. lépp loo xamante ni def def def nañ ko ci rek lu ci lu ñu bari suñuy effort yu bopp lay doon. Mm-hmm. ak suñuy moyens bopp. ñu seet ba ñu xool euh, naka la ñuy lijjantee suñu problème. parce que ñun problème yi nga xam ne moom la ñuy lijjanti bu dee fukk la daanaka juróom-ñett yëpp ñun mun nañ koo lijjanti ba ba pare. Uh-huh. te ambassade bi duñ ci jot. lépp loo xamante ni egg na ci ambassade bi rek. mooy loo xamante ni lu garaaw a garaaw. yu tëy mun waaw yu tëy wala wala wala mënta ñàkk. waaw. très bien mais dafa mel ne xëy na ñaari ñaari autorités yëpp euh, ni ko docteur waxee sànq màggaayu mbir mi daf leen xaw a bett tuuti yow jékki rek ñëpp dëgmal Arabie Saoudite. waaw loolu moom loolu lu am la. xam naa il faut ñoom dans l'avenir dinañ ko dinañ ko dinañ ko gëstu. canaliser ko loolu loolu loolu loolu dafa dafa bett ñëpp. man ah. mii sax bett na ma. Mhm. parce que man dama ne woon lii bu yàgg dama koy ba mhm. mais dama cee daj lu nekk. tëj nañ ma ci kaso. tuumaal nañ ma ci yu deful. foofu ci naar yi. wala fii Sénégal déedéet fii Sénégal waaw mhm. mais dañoo xamul rek. parce que ñaka defoon ba demee ba xam euh, lépp après bon xam nañ ne lii euh, lu ci bari defuma ko. dëgg la wala liñ foogoon moo amul. Mhm. erreur la woon. Mhm. mais loolu loolu la mais bu fekkonte ni euh, comme ni ma ko waxee woon sànq bu fekkonte ni lu bon la parce que léeg man damay dem ba lii daal dama koy bàyyi ndax dafa dafa bëri coono. Mm, waaw j'imagine que war na mm-hmm. mais saa yoo demee ba ba ba koo ba rek man mii di wax ak yow saa yu mu demee ba narkoo ba am na ñoo ci àndoon tey ba nañ ko. ndax coono gi ci nekk. te seen bokk bëgguñu ko xëy na. mais saa yoo demee ba nar koo ba da ngay gis ay ay njaboot ay liggéeykat yu ñëw ne la boo ñu boo ñu jàppalewul du baax faw nga dimbali ñu yóbbu ñu ñu dem liggéey suñu teranga ñun ay liggéeykat la ñu bokk ñu ñoo xamante ni duñu liggéey wala mënuñu liggéey bi ah. su ko fee yow nga ne waaw xaaral ma yóbbu ñii rek nga yóbbu leen ñu am réussite foofu noonu liggéey nekk ci seen tranquille nekk seen jàmm ak salaam ah. su ko fee ñeneen buñ ñëwaatee la même chose da ngay am cawarte ci yóbbuwaat leen mm-hmm. ba léeg-léeg nag nga am ci ay am nag ay yoo xam ne nag wala ak ay ñooy xaw a voilà mu nga mun mënta mm-hmm. ñàkk voilà jërëjëf docteur ak Fadel xam naa kàddu yu mujj yi laata ñu yëkkati jotaay gi rek mm-hmm. vraiment gis naa ne njariñ a ngi ci ci kaw ñu koy pencoo li ci bon rek mooy xeetu lu luy ndoog clandestinité am loo gis ci ci ci am réew dañ ko war a waxtaanee xaw ko amal lay laytaayu yoon ak yoonal bu ko defee rek li ci des ci ay fruits mën nañ mën nañ ko jariñoo waaw loolu loolu mooy dëgg surtout nag boo xoolee ne eh, ku ci nekk li ngay wax dëgg la ki ne gis naa tel cas tel cas mhm. dëgg la dëgg la maanaam da naan dëgg la li mhm. maire bi wax dëgg la gis na tel cas ba fii Sénégal ko waxee da ngay gis am mbindaanam ko jàmm am koo xam da lay def da lay def da lay doomoo koy mayee sax daal la ko bàyyile loolu nag nit ñi bokkunu mais Alaaji Assane li ci solo mooy ni nga def fii ci TFM mu nekk benn vitrine boo xam ne mhm. dafa dafa am lu mat a fàttali mooy li ñuy wax image. Mhm. dafa am force de frappe en matière de communication. Euh, pour les groupes et pour comme pour les individus. Mmh. comme touritam dafa am force de frappe en matière de communication. Mhm. Euh, yàlla moo wax ne dafa wax ne yaa ayyuha alladina utul kitaaba. aminu bi ma nazzalna musaddiqan lima maakum min qabli an natmisa mhm. fa narudda ala adbaariha aw nalaanahum kama laanna ashaaba sabt wa kaana amrullahi mafuula image yàlla dafa xam solo gu ma am solo ba nga xam ne boo ci boo boo ko jamee boo ca jamee nit lépp mën na yàqu dëgg la comme aussi boo ko defaree lépp mën na defar mu ne dafa am ñoo xam ne dañ doon contre contrecarrer Muhammad mu ne en matière de communication ñu mooy ñi fa amoon diina am lépp ñooñu nag yàlla ne bu ngeen bàyyiwul Muhammad dinaa leen déformer parce que nit ki boo ko déformé. Mhm. nga nga ne ko nga def ko benn AVC. Mhm. bët bii di xool fële gémmiñ gi aw fale est-ce que na amati force de communication. kon euh, nañu bàyyi xel loolu ci li nga xam ne dinañ koy wax ci réew yi di ko wax ci nit ñi. Mhm. ba nga xam ne ñuy nekk au juste milieu. nekk ñu objectif comme ni nga ko defee fii ba nga xam ne ku ci nekk danañ mën a sauvegarder image am. comme ni a mën a sauvegarder image Sénégal noonu lañ a defalee Arabie Saoudite dëgg la noonu lañ ko a mhm. mhm. kon euh, a bokkal a bokkal say nag du euh, bi nga gis yow dañ naan la wax nga dëgg mais am na yeneen téeméer yu fa nekk yoo xam ne gisuñu loolu Mhm. jërëjëf. jazakumullah euh, xayran ci seen liggéey bi nga xam ne yéen ngi koy def pour rafetal. imaasu doomu aadama yi ak réew ci. jërëjëf jërëjëf yéene bi moo doon rek ni ko waxee mbir am na nañ ko waxtaanee rek. Mm. parce que loo gis dañ koy pencoo wut solution. werante moom baaxul ci dara lu may wax souvent waxtaan moom pencoo mm. euh, jongante xalaat moo gën toujours ak werante mm. euh, sëñ Gueye. waaye rajo Assane daal ñun vraiment li ñu def rek lu gërëm la sant damay wax toujours. xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci journalisme bi ci presse bi. te nekk ay ndaw damay wax ni toujours ni ku mel ni El Hadj Assane moom référence la. vraiment modèle la boo xamante ni journaliste la boo xamante ni vraiment au vrai sens du mot. ko dégg mu wax nga xam ne kii journaliste la mm-hmm. lu mu bëgg a laaj dina ko laaj waaye nag laaj bi dina ko solal mbubb ba ki muy laaj mm-hmm. du gêné du ko frustré mm-hmm. donc loolu vraiment lu am solo lu ñu ngi koy saluer bu baax a baax a baax man nag li may jeexale vraiment élage mooy rek vraiment ay proposition yoo xamante ni dama koy def jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy yore liggéey bi fii xale yi bu ñuy demati nañ fexe ba xamal leen sensibiliser leen wan leen ni leen fa ngeen di dem kat bokkul ak Sénégal ne serait-ce que ñu ñu ñu ñu xamal leen réalité réew moom. Mhm. culture yi bokkuñu réalité sociaux yi bokkuñu bu ñu demee bu boobaa ñu préparer. Mhm. ba suñu demee du ñu am mbetteel mais boo fiy jógee fii soo soog jiin ni maa ngi dem Arabie Saoudite liggéey wala maa ngi dem Koweït di liggéey Koweït sax moo tax ne parce que Koweït moom bokk la bu Arabie ci wàllu googu. moo ah. tuuti liberté. bon bu ñu demee du am mbetteel parce que dinañu xam ni kat fa ñuy dem bokkul ak Sénégal. Mhm. bu euh, jigéen jigéen di taxawaalu bu xew fa. alors euh, baal yi xewu fa duñ la may tamit fay seen xaalis ba pare nga dem pour liggéey ñu bàyyi la nga yore sa portable di connecté wu ci internet ak ay Facebook rek. loolu aussi vraiment ñu bàyyi ci xel. Mm-hmm. ngeen kii ji beneen bi ci topp mooy aussi. vraiment 150 000 francs vraiment man gis naan tuuti na trop. Mm-hmm. comme salaire. xale bu ñuy demati yéen ngeen fexe ba ñi leen di wutloo ngeen def leen ay proposition ñu leen kat xale yi dañuy bàyyi seen yaay bàyyi seen waajur. Mm-hmm. jóge réew ak réew dem nañ fexe ba yokkal leen. parce que réew mu am koom la macha allah te nit ñu baax la ñu Arabie Saoudite mhm. ñu tabe la ngeen fexe ba yëkkati taux bi nga xamante ni salaire bi mhm. bon su ko defee léegi nga xam naa fa aussi nga baal ma soxna Nene mais am na am yoo fa xam yoo xamante depuis presque plus de vingt ans ñu nga fa di liggéey mhm. mais amuñu fa benn benn ah. am naa benn xarit boo xamante bu imam la bu ñu xam soxnaa ma nga fa di liggéey ci kër la nekk ma nga fa nekk mi ngi ci jàmm mhm. ak salaam Abdoulaye ma fa nekk son excellence mhm. doomu Serigne Fallou Mbacké la mhm. mooy euh, doyen du corps diplomatique foofa ci Koweït yàgg na fa trop ku baax la ku yaatu li ma wóor mooy du seetaan mukk benn Sénégalais di torox man dem naa fa ba tàyyi ñu invité ma fa mais boo demee yow ñu journalistes yi ñuy invité sax bu ñu demee daanaka bu ñu mënoon a jël moom ci ministre de la communication daf ñuy jël dañuy éviter këram añ di yëkkati xaalis di joxee lu ne lu ne daf koy def mhm. comme gan ñi da koy defal nag rawatina Sénégal yi nga xamante ne ñoo fa nekk dëgg la jërëjëf di gërëm encore de sant am na solo jërëjëf jërëjëf Guèye Fadel Guèye journaliste spécialiste ci questions arabes ñu koy gërëm bu baax docteur Ibrahima Ka ñu ngi lay jaajëfal bu baax ka naka noonu it euh, bébé Aïcha di delluwaatuma. <laughs> Eh, jërëjëf <laughs> eh, jërëjëf Makhtar Fall moom it euh, chef d' agence la ci wàllu yóbbu gi euh, jiite Makhtar groupe ñu ngi lay jaajëfal yow it euh, sëñ Fall. waaw mhm. mooy sëñ Saw wala non non du sëñ Saw de ah, Ousmane la tudd Ousmane la tudd Ousmane la tudd ak ki nga xam ne moo ko jaarale ci internet bi mhm. ba moom mu jot ci mu ne doomu pël du nekk mukk hmm. génn dëkk bi ba pare di fa torox ma koy seetaan mu daggal ma bi ak jabaru ak magam ay suñu baas ñëpp daal ah, na ba sonn la ah, jeex na tàkk ma lay jéggalu di baax bébé Aïssa ñëw na ba yemoon ci soow meeg sàmm si xëy na du waaw du la fi fekk. aja ok dëgg la jërëjëf ka ñu ngi leen di gërëm mbokk yi en tout cas ni ñu koy waxee saa su daal dañuy jéem di waxtaanee loo gis dañu koy waxtaanee ci lu amul solution amul wala bariwul donc ñu ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm euh, ba beneen